dal leen ak jàmm ñu jukkil leen conversation téléphonique bi doxoon ci diggante Ahmed Khalifa Niass ak euh, activiste bi di Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci Karim Xrum Xaq ci jamono yi mu nekk foofe ca prison bu Rebeuss ginnaaw bi mu jéemee lu bëree bëri ngir am ab permis de visite ngir seeti ki nga xamante ni moo di Abdou Karim Gueye foofe ca prison bu Rebeuss Ahmed Khalifa Niass mujjee naa woo ki nga xamante ni moo di activiste bi niki démb yamook 30 juin 2020 fils maanaam sama doom di woowee Ahmed Khalifa Niass li mu xamal Abdou Karim Gueye xurum xaq moo di daf koy fàttali moom Ahmed xalifa ñas ay jamonoom bi mu amee at yi nga xamante ni Karim Gueye am na ko docteur Ahmed Khalifa Niass nee na daanaka ngoneem gi yëpp mi ngi ko def ci diggante prison wu Sénégal yi cent wala sax camp leneen loo xamante ni kilifa diine gi xamal na ko Abdou Karim Gueye xurum xaq moo di ci jeunesse manifestation bu nekk amal na ko nee na jot na sax lakk li nga xamante ni moo di drapeau France loolee taxoon ba ñu jàpp ko tëjoon ko ci kaso bi nee na nag loolee tey jii Karim Xurum Xaq moom moo si toll ba tax looloo waral du ko bàyyi moom kese ndax kii di Karim Gueye dafa koy fàttali ak ngoneem nee na nag naam administration pénitentiaire bi bañal nañ ko ay yooni yoon permis visite yi nga xamante ni bëggoon na ko ngir mën a seeti Karim Gueye foofee ca prison waaye taxul benn yoon mu découragé def na kéemtulaay kàttanam ba daal di koy jot téléphone foofee ca prison bu rëbës nag kii di Abdou Karim Gueye mu ngi sant yàlla bu baax mu ngi am wér yaram Ahmed Khalifa Niass nag lim xam leen nee na nit bu amee force intérieure dara mënu ko affaiblir ba tax Abdou Karim Gueye ànd ak forme ak force ndax dafa am di force intérieure leneen loo xamante ni kilifa gi xamle na ko moo di kii di Karim Gueye dina génn prison lu yàggul dara ndax daanaka moitié peine biñ ko tëjoon tëdd na ko lekkook bonne conduite bu baax ba tax ay avocam ñu ngi liggéey ngir ñoom bàyyi ko ab remise de peine Ahmed Khalifa Niass nee na dafa jàppe kii di Abdou Karim Gueye comme doomam bu mu jër ba tax dina ko defendre fépp fu mën di nekk ndaxte xurum xaq daf koy fàttali ak ngoneem